Nous, bu le cardinal Théodore Adrien sar gannaaw ci loolu sénégalais am rejoindre di la féliciter yow ak euh, PDG ou Public SN. Hmm. occasion bi permettre euh, les candidats yi nga télévision yu plateforme yu mag yi. Hmm. wuñ parce que dafa am xam Sénégal. Hmm. mooy dafa am candidat VIP lañ Mhm. dafa am yenn journaliste ak yenn plateau yoo xam ni dañu am complexe candidat yu mag yi soo nekkul ancien premier ministre boo nekkul ancien ministre boo jógewul bitim réew ñu ne mës nañ la woon boo taxawee fii nga nekk nit ku sell nga nekk nit ku yiw nga nekk nit ku xeexal Sénégal boo nee da ngay laaj réew mi eh, tribune yi dañuy jàpp ne yow amoo waruñu laa woo ma gis ni keroog Public SN ku mel ni Abdourahmane Sow parcours am citoyenneté am am honnêteté am ngeen invité ko mu ñëw toog nangu ni ni candidat à la candidature la am na proposition yu mu tegal Sénégalais yi mm-hmm. le lendemain aussi mu gis Fadel Barro fi mu jaar ci xeex ci combat citoyenneté citoyenneté active 2011 joué woon nañ fi ay rôle am na lu ñu def lu baax loo xam ne yegsi nañu fi mm-hmm. jóge na foofu dugg ci politique mm-hmm. jóge ci beneen système ngeen teg ko fii aussi tamit mais permettre à ce que mu wax. Mhm. ma leen di remercier ci loolu di wax lancer bobu aussi non lañ ko bëggee parce que soxla nañu candidature jeunesse bobu parce que si l'âge médian est dix neuf ans. Mhm. offre aussi tamit war nañu am ben ben convergence générationnelle comme disait Mamadou Diop Croix moy war nañu fexé ñoñu ñu may leen tribune ñu wax mais nak dafa am lo xamni ni aussi tamit faw ñu wax ko euh, tribune ak plateau yu mag yi parce que may mënoon Ndour fay tribune tribune boobu muy teg. mais mënuloo xalaat Abdourahmane Sow dem fa te pourtant dafaa war a dem. pourquoi Maïmouna Ndour Faye du invité Abdourahmane Sow du invité koo xam ni doo ancien ministre. boo dul ancien président boo dul ancien PM boo si duñ la fa invité. boo demee aussi Pape Ngagne Ndiaye doo fa gis ñooñu ñu mel noonu ñu toog fa candidat yi nga xam ne ni dañu diriger woon ay affaire publique affaire état ak affaire leneen. donc bu ñu nangu tut bi ñuy am ak suspicion bi ñu bañ yegg ak foofu ak ñoom parce que ñun loolu la ñuy ni ni seen plateau yooyu dafa am looy joxe jaar fa wala dafa am pouvoir booy am wala dafa am loo leen di mënal parce que dañu jàpp ni ñi le fait ñoom ñu ne ay loxo yu set lañ yor yoruñu dara mhm. waaye war nañu mën a laaj réew mi te amuñu accès ci tribune mhm. donc pour man ñooñu muy Fadel Barro muy Pape Djibril Fall muy ñooñu ñëpp nga xam ne dañoo jóge ci journalisme ñii jóge ci citoyenneté active ñii doog ay citoyen mhm. mais war nañ leen ibil tribune donc Public SN loolu mu def ma ko ci encouragé. di ko ci sensibiliser di wax nag ni bu ñu bëggee ne dañuy xeex corruption bu ñu bëggee ne dañoo bëgg bëgg bëgg fi jële mal gouvernance dañu bëgg aussi sénégalais yëpp ñoo yem droit égalité de sens mais mënoo woote égalité de sens ba pare nga ne képp koo xam ne ni amuloo ay milliards amoo ay millions mosoo fi diriger mosoo fi yor kenn du la ibil bi nii kenn du la ibil plateau yi donc pour man. loolu aussi tamit nanu ko xoolaat mais li ngeen def keroog dégg naa la waxtaan bi am solo mu nekk keroog lu ma neex trop Mhm. vraiment loolu il fallait que ma remercier leen ci féliciter leen si. Mhm. di wax plaidoyer boobu mooy élection yi ñu jëm télévision yi bu nu moytul dinañ ko jaay. parce que yenn émission yu bari mooy Sud FM Ndekki lii mooy Rampacce mooy MNF invité Maïmouna Ndour fay mhm. bu fekkee demaguñu élection te ay boromi milliards rek ñoo fay jaar wala parti bi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ak ñoom en ligne boo demee Walf Fadjri boo farul ci parti bi nga xam ne ñoom moom lañ jàpp ni moom lañ bëgg a àndal jël réew mi donc duñ la invité am man gëwuma ligne et que bu ñu yàpp naan ñu Walf dafa am ligne opposition ligne amul fenn loolu même patron de presse yi ñoo waroon bañ sax ñu koy wax ligne mooy lan RTS service public lay def télévision boo xam ne ñun ñoo ko moom mais service public lay def état bu ñëw nanguwu ko changer mais sanction ngi am ab Abdou Diouf def na ko fi ñu sanctionné ko Abdoulaye Wade def na ko fi ñu sanctionné ko président Macky Sall mii xëy na amaana ñit ñi ñu ngi gis dinañu dem ba ci beneen président bu ñëw dindi ko fa mais bu dee RTS day def loolu nga retourné yéen ngeen ne yéenay télévision privée yi ba pare ngeen di def la même chose pire que RTS. Ah, boo demee c'est pire papale Alé Niang turbinam ku bokkul ci opposition bi du la invité ah. te benn patron de presse du wax correct du wax. boo demee Moustapha Diop ku bokkul ci Pastef wala bokkoo ci mouvement opposition radicale duñu la invité kenn du wax bu dee Maïmouna Ndour fay la si tu n'es pas milliardaire si tu n'es pas ancien ministre so amul xaalis duñ la fa invité su dé pap nga Ndiaye la ku la nak cité mom daf ko ibil ñep mais faram fàcce nous avons vu depuis ben moment à un certain moment il faut nga doon candidat bu am tour wala candidat bu am xal soit on nous dit que émission yoy wala plateau yoy wala tribune yoy dafa am prix ah. ñom ñu dem dajalé parce que ay borom jom lañu uh-huh.

organisation de presse Ken kenn ñemewul publier liñ la jox Té mu né 454 sites rek mo légal le ministre bi mané ko man sa lettre bobu ngay wax mané ne OFNAC war na saisir parce que xaalisu sénégalais yi lañuy jox nit ñi. parce que pendant ce temps il y a quelqu'un qui s'appelle Hassan Boub promoteur de télé école. depuis combien de temps mu koy yor diko dawal yor ko ibbi ko mais tay amul convention amul sponsor amul lente. te saa yoo yeewoo télé bi mu ngi jàngal xalé yi. télé bi mu ngi wane lu baax. pendant ce temps ñu mën ni la ni Walfadjri mu ngi delloo cinquante millions yu ñu ko jox et que gis nañu Walfadjri depuis mois de mars ba fi may wax ak yow nii luy taal réew mi luy tas réew mi rek lay wane. lay wax nga dem ci yeneen télévision yoo xam ne ay politiciens rek quatre-vingt pour cent activité politique la mais bu dee suñu xaalis école yi dafa manqué. Cas de tout petit manqué daaray amuñu ay subvention école yi manqué ay professeurs tablement yi manqué fa nga mëna jël un milliard neuf pour subventionner ko ay télévision yo xamni duñu contribuer wala ay site d'information, duñu contribuer ci éducation ak service public RTS 13 milliards Lolo tax ben moment j'interpelle le ministre de la communication ak organisation yi nga xamni ne dañuy bonne gouvernance ak ñi nga xamni ñom ñoom tuddé ay cap ak ñeneen ñi parce que boo dee xaalis bi transparent wul bu dee bonne gouvernance amul ci séddale bi te yéen yéenay toog ci taabal bi yéenay joxe point yi bu dee yéen lii génn na te yéen kenn defu ci effort bu ay rapport génnee ay conclusion génn amul benn sens loolu je les interpelle te du ko bàyyi ba keroog muy leer il faut que ministre bi ñëw wax ñu publier xaalis bi ñan la ko jox ñu xam sit yi baax yi ak sites yu baaxul yi Mm-hmm. parce que mënuñu accepter quand même sénégalais am ñuy dé ci mm-hmm. hôpitaux yi am classe yu manqué. am yene télévision promoteur privé comme Assane Mboup kenn mënu leen encouragé kenn du leen encourager mm-hmm. ba paré ñuy jël xaalis diko jox ay nit te dañuy dem élection. motax dama né l'importance de ces élections moy le contrôle de ces médias. l'imp pas de faire le tour du Sénégal ak Sénéra di former parce que même journalistes yi ngay former sous des patrons de presse yi balaa élection dañuy jaay télévision yi journalistes yi loo leen former ban njëriñ la leen di amal. Merci beaucoup merci merci merci beaucoup Sen Diallo euh, comme niñ ko